julli ak liggéey ku ko bàyyi sa réew du dem fenn jàng julli ak liggéey te lii rek nag moo yor bépp société bu bëgg a jëm ci kanam société bu xam-xam amul fu mu jëm société bu ñu ragalul yàlla ku ragalul yàlla doo jub doo tegu ci njub doo jubale fu mu jëm waaye société bu ñu dul liggéey mais boobu société fu mu jëm du mas a dem kanam moo tax xam-xam jaamu yàlla liggéey noonu la demee nag ci sëriñ Touba radiyallahu taala anhu kenn werantewul ne yi liggéeyal na yàlla bind na ci moom lu nekk bind ci yonent bi sallallahu alayhi lu nekk am na ñoo xam du ñu xëy te wax demuñu ci yonent bi te moo leen fa jaarale ci jàng ay ay mbiram kooku ndax desu fi te dem na de te dafa mel ni ñi tey ñoo ko gën a xam ñëwoon démb boo demee ci limaamu laay dem sax nag bay tuddee boppam allah la ilaha illallah ñu askane la ko baatu laay ilaaha la xam nga ko kennal na yàlla bàyyi na fi yàlla ñëpp war koo topp kennal ko kooku ndax desu fi Cheikh Sadibou Abi ak mag ñi ci bàyyi yëpp mais jumaa ji kañ la woon 1906 ndax desu fi boroom a ngi nii tafsir Momar Ndiour ndax desu buñ ko yàqoon ndax yàlla nekkatu fi ñëpp dem seen yoon kon nag mag ñu baax ñooñu ñoom dañuy des fii ci seen liggéey ak seen topp yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw la grande interrogation nag mooy ñun lan moo ñu war ndax dañuy tudd ñooñu rek di barkeelu ci ñoom dañoo war a mel ni ñoom di jëf ni ñoom ndax yàlla mooy maye ba tey te moom mu ngi fi ba tey lam mayoon ñëwoon démb mu ngi koy may tey ay nit waaye ku jaar fa ñu jaar rek nga am li ñu am bu ci kenn génn sa bopp nag cofeel bi ñu am ci ñoom ak mbëggeel ga ak mbaax ga daf ñoo yóbbu ci lu am solo lii muy xubbu bayna ibaadihi mooy mbëggeel bi nga xam ni jaam yi dañ koy bëggante ci seen biir mooy nit ki bëgg moroomam mu am solo bu rëy nag waaye nit bëgg moroom léegi intere yi daraja yi yàq na lépp mu am solo lool bu rëy ndax ñaar ñu bëggante te yàlla tax dañuy bokk ci ñi nga xam ni yàlla dina leen keral ëllëg yowmal xiyaam xam nga ëllëg yowmal xiyaam benn ker amu fa loolu bi fa yàlla indi waaye mu ne nag ñaar ñu bëggante bu yowmal xiyaamee dañuy bokk ci ñi yàlla di keral waaye mbëggante boobu na fekk yàlla kese la bu ko intérêt lal su ko intérêt lalee bu intérêt bi dañee mu yàqu li war mooy ab julit mbébétam bi gën a rëy mooy yàlla gërëm ko tabal ko aljana jullit yëpp nag seen mbébét yi bu gën a rëy yàlla gërëm leen dugal leen aljana saaga saaga dafa nekk métier de dans ce pays là ñu naw la ci saaga nga saaga mag saaga ndaw saaga sa baay saaga sa ndey saaga kilifa ak nu mu toll nga jaar fu bon te mu am njaboot nga saaga nga saago te kat il se croit dans l'anonymat kenn mënu jot ci ñoom déet dañuy nax seen bopp parce que réseaux sociaux yi loo wax mu nga fa ba àdduna di tukki waaye foo ko waxee xam nañ la mën nañ la faa fekk ne la coppet yooyu dafa war mën a te ils ne pas courageux parce que doo génn réew di fa wax la ngay wax xam nga lu ñuy wax influenceur ak influenceuse mais qui qui influence-t-il les faibles kooku nee man lima nek dama la bëgg xëcc pour nga nek ci te tegul ci dëgg tegul ci laal wayo yow te ngaa xëccu ñu yobul la ci li nga xamni mo lay jariñ mais kilifa fi mu nek te lenn lañ ko duggé ils veulent déstabiliser nos chefs religieux là te bu leen déstabiliser fi Sénégal xott moo fi dess lu neex way def lu neex lu a def combat la bu se xam sax qui finance ce truc là mais ce qui est sûr il y a des gens derrière eux jox le passeport nga dem ci bitim rew taxaw fa di saga num la tu n'es pas inquiété Tu ne pas ñu ñu mais ça doit arrêter ça doit arrêter lo mom ngay def jiko yi yàqu yep yep, yep, yep, boko ko ci réseaux sociaux yi moom fay dem wa man sax dama yakar ni est-ce que dans tous les autres pays l'utilisation des réseaux sociaux est la même que li ñuy xew Sénégal té li ci nek ci njariñ kenn xamul lu mu toll mais ñu ñu tam la gëna bon ji ko jël te kat bok na ci li ñu war bëgg nak ñu jox ko gëddam di xey waxtu wàcc waxtu baña a xañ kenn akam yow mi nekk ci place bu ñu lay soxlaa nekkal ci service nit ñi defal lu jaadu ca ñoom te nga nekk ci lu tax nga nekk fa yow bul gëddee ñu jox la service ngay gëddee day sa doom bul gëddee bul yuxu nit ñi bul boddee bul xañee bul gàntuloo lu warte mën a nekk bul yéexal liggéey bul yéexantu bul laaj neexal yàq na service bul laaj ak pay ci te warul bu ko defee nit ñi dañ lay bëgg nga bëgg leen intérêt général moom la ñu war a privilégier intérêt personnel gi nga mbokk yi dundal sa bopp dafa gën a wóor waaye li yéeme tey gàcce ci Afrique gii mooy négocier dund bu jógee ci ay réew yu guerre ndax Afrique gii détient 60 pour cent des terres arables du monde 60 pour cent des terres arables yu gën a nangu ci mbay fii la nekk l'Afrique détient les jeunes c'est le continent le plus jeune waaye dañuy nelaw rek lépp ngi ce qui ñu gàdd suñu dem di yalwaani lu ñu ñun te Union européenne il n'y a que 12 des terres arables donc 5 fois plus mu ngi fii Afrique ça, nous dañ fay dem sax di ndax gis nga fii ci réew mi bu ñu bëggee tàqalikoo ak coono yu dund gis nga faw ñu dem bay mais bay du gàcce te c'est un métier rentable bay du gàcce te c'est un métier rentable aux États-Unis 2 pour cent de la population presque ñooy nourrir adduna adduna bi yëpp te ñoom 2 pour cent ñooy béy avec leurs moyens waaye daanaka ñooy dundal adduna bi ñun 70 de jeunes ou ou presque kenn nangu loolu mais xoolal jeune bu nekk bu amoon 100 kilos ci dara rek 100 kilos ci dara rek ci 16 13 millions de jeunes lan la lan lañ dul bëgg ñëw nañ foofa lépp lu xaraam ci ab julit lépp loo xam ni ngërëmu yàlla nekku ci jarul a bëgg lépp lu lay fàttiloo jaamu yàlla jarul bëgg lépp lu lay les yàlla jarul te yàlla amu dara jarula dem jarula là bëgg def ñun nag bokk nañ ci ak pal te mooy dem élection au Sénégal il y a toujours eu des élections waaye élection tiitaange waru tiitalaate ak tiit waru ci njàqare waru ci xeex xuloo ak ŋaayoo déedéet di ci dee déedéet li ci war kay mooy jàmm waaye les acteurs politiques ci mim réew ah yaakaaruma ko de xanaa ndax ñoom dañoo yaakaar ni ñoom ñoom moom réew mi wala ñoom dañoo yaakaar ni ñoom moom waa réew mi wala dañoo yaakaar ni dañoo donn réew mi ah te nag seen mandat yi rek la ñu fal député mandat yi mandat yooyu rek mooy indi coow waaye mandat yooyu bu mu tax kenn di ci dee mbaa nga di gaañoo te ku ci dee perte Ibrahima ku ci dee perte sahidoo de waaw sahidoo laa wax tu ne pas un martyr ku ci dee perte dañ lay fàtte 16 millions d'habitants il y a des députés.. 165 presque un député pour 100 000 habitants Wa quoi dafa jël gën 999 999 900 Vous a 165 députés Il y gën 16 millions d'habitants yi ba ñu a ngir non kenn warul dee ngir kenn yàlla sax kenn du Il ngir a des bu fekkoon dañuy dee ngir ku ko weddi mu rey la wala mu reylu la waxtuma la doomu adama kenn amul droit di bafouer honneuru kenn kenn amu ci droit yàlla ne boo ko defee mbugal mu nag moo la ciy fekk nit kenn du ko toroxal waaye li ñu moom nga liggéey ko moom ko kenn amul droit yàqal la ko du kenn xamul noo def ba am ko du kenn ku am droit def ko boo doon sàcc tamit di yàq yëfi jàmbur defoo lu la war dañ la fay sàcc ga waaye dañ la fay jàmbur bii yëg liggéey alalam ba pare nga jël ko mbugal la kon yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla jubal élection yi jëm yàlla nekk des élections ép